tay ñu ñëwoon fii ci bis bi nga xam ne dañ koy dañ koo jagleel way dawlu yi mooy ñi nga xam ne dañoo jiitu barsaq ñu am bis boo xam ni mbokki talibe yi rawatina daayiratu wilaya dañoo dañ ci xëy di ci yendoo jàng alquranul karim ak xasiide sëriñ bi ak ay ñaan di leen ko jagleel di leen yéene yor ba loolu nag liggéey bu rëy la boo xam noo koy euh, rafet lu baax te diko te di ci bekk di sante yalla itam bin ci tewé tay ren euh, di ñaan yalla nangul lepp te jotale ci mbollem julit ñepp ak mbollem ñi jitu ci barsak wa bis bi mom bis bu am solo la nak ñi jitu di len fatlikou lolu lu reey la du am solo la lu lu yalla la itam ndax kenn ku ne ci nun bis dana ñew nga bok ci ñoñe kon am bis bo xamne dañ leen koy jaglel di leen ci defal ñaan di leen ci fàttaliku eh, loola lu am solo la ndax ñaan seigne touba wax na ne dana jariñ ñi nekk ci dana jariñ ñi dund way dana jariñ ñi ne ci bammel itam dana jariñ mom ñaan lu am solo lu mënta ñakkal itam te fofé ña fa ne itam ñaan yi rek ak tuyaaba yi ñu leen di yone rek lañ fa mën di dundé leer googu rek mo leen fay fekk lu lolu du leen fa fekk yonte wax na nit ki bu faato jëfam yëpp day dog ba mu des ñett mooy sadaqatun jaariya ak ilmun yuntafaxu bihi aw waladun saalihun yad'u la mooy xam-xam bu mu fi bàyyi woon ñu di ko jàngale ginnaawam di ko jariñoo wala doom ju koy ñaanal loolu nag ñaan yi day tàbbi ci loolee kon kon lii liggéey bu rëy bu rëy la bu am solo da ñaan yàlla nangu ko te boole fay leen ci ngeen ci fay daraja sëriñ bi